ma jëm ko penk ci woro assalamu alaykum wa rahmatullah wa hamu kunta ma ngi di la yëgante nga nuyul ma xalifa bi Cheikh Mokhtar Kounta am nañ mbégte lool ci biñ ko ziyaare léegi ci biir gis jëmmam jëmmam ju tedd ji di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér di nuyu porte parole bi suma xarit Cheikh Khalifa Kounta di nuyu njabootu Kounta yi yépp di gërëm nuyu comité d'organisation te di rafetlu seen taxawaay bi ku gis béréb bi ñuy toog ak ni ñu ko arrangé da ngay bég jërë ngeen jëf di nuyu taalibe xaadir yi yëpp di nuyu kilifa diine yi nekk ci réew mi di nuyu seen ndaw yi leen fi teewal ci jotaay bu am solo bii di nuyu tamit ambassadeur yi tay di bes bu am solo ci dëkk bii di njaasaan di ba si gàmmu waat nga xam ni bëri na lool ñu bàyyeekoo bitim réew ñëw fi te loolu sunu sag la sunu mbégte la ci Sénégal loolu moo tax président de la république yi ci réew yebal ma fii ma ñëw ànd ak bi ma àndal teewal ko fii moom yi ci mi waaye teewal fii gouvernement bi yëpp ci njiitalu premier ministre Ousmane Sonko maa ngi nuyu xalifa bu baax bi Cheikh Moctar Kounta di ko sant bu baax ci taxawaayam ak yaatalam ci wàllum diine ak ubbeekoo moom ak njaboot bi yëpp njiitu mi mi ñu fi yebal ñoroon na fi ci fan yu néew yëkkati fi ay kàddu yoo xam ni bu ñu def lu dul gën ko féddali feddaliwaat muy yéeneem ci mboolem diine ji waaye ci mboolem këru diine yi sëriñ bi seen temu gàmmu bi ren temu gàmmu bi ren da ci wax ni mooy dimbalante maanaam solidarité te loolu dafa am solo lool te ñun dañ ko soxla ci réew mi rawatina ci jamono ñu toll ginnaaw loolu mu ngi xamle ni bi mu fi ñëwee li nga xam ni moom la sàkk woon ci moom muy lu jëm ci wàllu assainissement ak lu jëm ci wàllu mbéy mi loolu wareefu état bi la te moom dina ci taxaw kent lay kàttanam ndax mbéy dafa bokk ci yaakaar bi senegal am ngir mën jëm ci kanam te loolu moom la ñu xame woon këru diine ni yitte bi mu ngi ndokkeel bu baax sëriñ bi ak njaboot bi di wax ni suñu mag ñu baax ñi seen taxawaay seen taxawaay lii rek la woon liggéey ak jaamu yàlla te am réew mu mel ni Sénégal loolu moo koy jëmale kanam ginnaaw loolu sëñ bi njiitu réew mi mu ngi massaw mbooleem ñi ñàkk seen bakkan ci taw yi di jaale seen njaboot yi mu ngi massaw yi ñi nga xam ne dañ ci yàqule ci seen alal di wax ne état bi du leen seetaan dinañ ci taxaw suñu kenn lay kattan rawatina ci at yii di ñëw ci kanam sëñ bi njiitu réew mi mu ngi sàkku ci xalif bi mu ñaan suñu borom mu def jàmm ci réew mi def ko ci élection yi nga xam ni moom la ñu jëm ci tolloon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre war ci tànn ndaw li nga xam ne ñoo ñuy teewal ci assemblée nationale suñu borom bi yàlla na def ñu amal ko ci jàmm doon loo xam ni ndégoo nit jiglaayu réew lay nag njiitu réew mi mu ngi dellu di feddali feddaliwaat yéeneen ci liggéeyu réewum Sénégal teg ko si jub jubal ak jubanti ànd ci ak gouvernement bi sëñ presiden baru ini la république mu ngi ñaanal xarit bi cheikh mokhtar ponta suñu borom yàggal ko fi te defal ko wér mu ngi sàkk tamit nga ñaanal ko suñu borom gàttanal ko ba yéen a dina am ci sénégal mu yeggali ko ci jàmm di sàkk tamit nga ñaan ci réew mi suñu borom yokk fi dal kàddu yi lañ ma yónnewoon ma ma kàddu yi la ma maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan borom bi mu defal ñu jàmm ci réew mi jërë ngeen jëf maa ngi leen di gërëm di leen sant